juróomi fan ci weeru février képp ku nekk ci région bu ndakaaru képp kuy sénégalais ñu lay wax ñun ñëpp nañu joxante rendez-vous assemblée nationale ndaxte suba la assemblée nationale député yi war a daje téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi député yi ngir wax ndax dañuy may président Macky Sall li nga xam ne moom la bëgg. onze heures ci suba waaye foog naa ne bu ñu bu ñu julli euh, fajar fekkul assemblée national bu ñu jullee nañu dajee assemblée national ñun ñii nekk ci région Ndakaaru ku mun a fanaan nanga nga fanaani ku mun a dugg biir assemblée na nga dugg biir assemblée ndaxte dañ leen di fàttali ne assemblée national am na place boo xam ne pour ñi nga xam ne ay citoyens lañu dañoo bëgg seetaan du ñu mën a wax. donc yoon moo ñu may ñu dem dugg assemblée nationale pour déglu ñi nga xam ne. ndaw yi muy député yi donc képp ku nekk ci région bu Ndakaaru. Ndakaaru nañu joxante rendez-vous assemblée nationale ñun Diomaye président ñu ngi tàllal loxo képp kuy njiitu syndicat. njiitu centrale syndicale njiitu parti politique képp kuy mais candidat ci élection vingt cinq février bii di ñëw nañu joxante loxo def benn say ku ne foofu ca assemblée nationale xeex bi nag du xeexu Guy Marius Sagna xeex la ñun ñëpp xeex bi nag du xeexu coalition Diomaye président de suñu xeex wala monsieur le ministre Mary Teuw suñu xeex la ñun ñëpp dama ne xeex bi du xeex xam ne mooy président Aminata Touré mi nga xam ne ñu ngi ko teg loxo ci gendarmerie bu Foire ci loo xam ne xeex de suñu xeex la ñun ñëpp xeex bi du xeexu basiru Diomaye Diakhar Faye du xeexu Ousmane Sonko suñu xeex la ñun ñëpp mboolem citoyen mooy ñun ñi nga xam ne citoyen sénégalais ñun ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu te am ay jafe-jafe ñu respecté suñu sañ-sañ ci wàllu syndicat te ñu respecté suñuy sañ-sañ ci biir entreprise président Macky Sall nee na dafa bëgg a wëyal xeexu travailleurs yi la li président Macky bëgg muy lu jege li président Macky Sall bëgg mooy seen coono yéen dafa bëgg a wëyal coono boobu ndaxte luubal alal moo tax amu leen ndox moo tax amu leen courant jël alalu ask jébbal ko tubaab yi moo tax amuñu ndox moo tax amuñu courant kon loolu waruñu ko wëyal li février 2024 élection présidentielle am ñun ko nee nañ Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy gagné élection présidentielle le 25 février bu doon loolu rek kon président Macky Sall du mës a nekk président kon président Ablaye Wade day naan Sall moo may gagné lii mooy message bi mag ak ndaw góor ak jigéen ñun ñëpp nañu dem assemblée nationale ñii nga xam ne nag nekkuñu ñi nga xam ne dëkkuñu biir région bu Ndakaaru ñu ngi leen di wax ne ñun coalition Diomaye président na nga bind sa bataaxal pour mettitlu naqarlu putsch électoral coup d'état constitutionnel bi président Macky Sall def bataaxal nga nga dem yóbbu ko déposer ko ci gouvernance ci préfecture ci sous-préfecture ak ñoom dem naqarlu ko ci bërëb bi nga xam ne moom la ñuy woowee gouvernance ci bërëb bi nga xam ne moom la woowe woowee préfecture ci bërëb bi nga xam ne moom la ñuy woowee sous préfecture ah rafetluwaat campagne ndaxte président Macky Sall dafa waxoon ne campagne du am campagne amatul ubbeeku fii ci ndakaaru campagne bi commencé ci lu ñuy woowee désobéissance civile ne président ñoo lànk ñoo bañ ci biti Dakar Ziguinchor Matam Kaolack Fatick Tambacounda ak ñoom seen gis nañ seen taxawaay campagne am na def ngeen seeni caravane ci tànk wala ci pour commencer seen campagne loolu nag dañ koy continuer suba dañ koy continuer incha allah ba ñaar fukki fan ak benn muy diiru campagne électorale bi lii mooy taxawaay bi nga xam ñun coalition Diomaye Président di xaar ci ku nekk ci ñun ndaxte mbir mi du mbiru Diomaye du mbiru Ousmane Moustapha Guirassy ak docteur Tete Diédhiou ak ñoom seen lii kon la xaar ci yéen sànq li nga xam ne président Macky Sall foofu la ñu bëgg a buux moom mi nga xam na waaye président am na et que Lamtoro buuru téeméeri at ci ginnaaw la woon c'était un seigneur féodal à la tête duquel il n'y a pas de laquelle il n'y a pas un Lamtoro mais un président de la République 2024 et dont le successeur sera désigné le cinq nañu xeeñ lu neex daje biir ndakaaru daje ci gouvernance yi ci préfecture yi ci sous-préfecture yi bu ñu mooy le putschiste ñun ñooy légaliste yi Macky Sall putain moom mooy def mutinerie politique fu mu nekk nii d'ailleurs depuis deux mille vingt et un foofu c'est le président Macky Sall l'APR et Benno Bokk Yaakaar ñooy def résistance ci seen dem ñoom ñooy def résistance président Macky Sall li mu annoncé démb seen résistance la ñoom ñun askan wi dañ leen jeexal ngeen pare ngeen ñoom dañuy résister waaye fii la ñuy fekk lum leen jaral dinañu jaral dinañu jaral lu ko ëpp lu ko raw Sénégal, ça appartient au peuple souverain. Je vous remercie.